mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point com ñu leen di jaajëfal bu baax ci topp bi ngeen ñuy topp xam ngeen doon nañ ko séntu euh, euh, li nga xam ne euh, moom mooy weeru koor bi nga xam ne nag ñoom ñooy waa commission nationale d' observation du croissant lunaire ak ñi nga xam ne ñoom la fi waa Touba teg ngir ñu saytu li nga xam ni moom mooy weeru koor gi ñoom nag mànkoo nañ na gisuñu li nga xam ne moom mooy weer wi waaye leneen loo xam ne am na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa CMS di coordination

information limametti point com ngir dara bañ leen a rawoo di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar